حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وكل آمن وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم أعاده الله علينا باليمن والخير والبركة وبعد ويقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا نص يتكون من أربع كلمات لكنه يحتوي على حقيقة هائل عن وجودنا والهدف من خلقنا لنعبد الله وحده فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا رواه بخاري ومسلم إذا أيها الأحباب فالغاية من وجود الإنسان والجن تتمثل في هذه الوظيفة وهي العبادة فمن قام بها وعداها فقد حقق الغاية من وجوده ومن قصر فيها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة وباتت حياته فارغة من القصد خاوية من معاناها الأصيل الذي تستمد منه mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ndokkeel ci feetu tabaski bu màgg bi ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dellu siwaat ko ci ñun ci ay at yu baree bari yu ànd ak yiw ak xéewal ak barke ñu ngi leen di wax yal na nu yàlla nangul nangul leen at mu nekk yal na leen fi fekk fekk ngeen nekk ci jàmm ginnaaw loolu mbokk yi borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ci téeréem bu màgg bi ne nit ñi ak jinne yi li tax mu sàkk leen mooy pour ñu jaamu ko boroom xam-xam yi ñu doon firil alquran di ñu dimbali pour ñu dégg aaya yi ñu ne aaya bi borom bi ne wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yaabudun ñeenti baat la phrase bi yëpp boo ko boolee ñeenti baat kese la waaye ñeenti baat yoo xam ne dafa ëmb dund gi yëpp su nit ñi déggoon ñeenti baat yi rek dégg aaya bi kese kon danañ am jàmm àdduna suñ demee àllaaxira ñu dajee suñu boroom mu dugal ñu aljanna lu tax mooy dégg ñeenti baat yooyu mooy tax nga xam yow yow yaay kan lan moo tax ñu bind la fii nga ñëw ci kaw suuf loo fi def soo fi jógee fan nga jëm waaye loolu ñu la sant ci kaw suuf nan nga koy defee waaye doomu aadama yi jullit yi mbindeef yi ñàkk a dégg aaya bi ñàkk a dégg baat yi moo tax ba léegi lenn ci ñoom xamuñu lu tax yàlla sàkk leen xamuñu lan moo tax yàlla wàcce leen ci kaw suuf si xamuñu kaw suuf si lan lañ fiy def si xamuñu buñ fi jógee fan lañ jëm lu tax mooy dañoo réer mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñeenti baat yooyu ëmb aaya bi yaxtawi ala haqiqatin ha'il ay vérité yoo xam ne ay dëgg yoo xam ne ay mbir yoo xam ne gëlëm loo na doomu aadama aaya yooyu mu ne aaya yi ñoo ëmb wax doomu aadama lan lay ursi ci kaw suuf ak jubluwaayam fii mu ñëw lan moo tax yàlla sàkk ko jële nañ ci Muaz kenn la woon ci àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi benn bis da koo togg ci mbaam sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi hadis yu mel nii def ñuy fàttali lenn rek muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fi gën waaye xool leen nu mu wàccee boppam tiitaruwu ko wanewu ko muy war mbaam di war mbaam moom yonent te da ngay dégg fii ci Sénégal ñu ne diw du war mbaam diw du war mbaam balaa saa mu war naas ñenn ñu ne ku sant nangam doo war mbaam te yonent gën ci nit ñi daan war mbaam yemul ci war mbaam waaye mu war ba pare teg keneen ci ginnaawam yóbbaale ci nit sallallahu alayhi wa sallam te moo fi gën pourtant mënoon na war lu dul loolu est-ce que jamonoom amul woon ay gëléem tontu bi mooy ah kay est-ce que amul woon ay fas wallahi la azim bu dajale woon saxaaba yi mu ne indil leen ma gëléem bi gën ci gëléem yi ci réewu arab yi ñu indi gëléem bi ndax ñoom xamoon nañ mooy kan waaye xoolal dafay bàyyi yooyu yëpp di war mbaam lu tax pour won nit ñi doomu aadama dafa war a suufe warul kawe kawelu warul rëy ndax rëy mbalaanu yàlla subhanahu wa taala la yàlla nee na ku ko xëccoog man rek fi ngay mujj du baax moom yonente bi mu war mbaam mu togg ci ginnaaw mbaam bi sahaaba bu tudd Muaz ñu dox ba ci kanam yonente bi daal di jël loxoom teg ci mbagg Muaz mu ne ko yaa Muaz atadri ma xaqullah Muaz mu ne ko labbayka ya rasulallah mu ne ko ndax xam nga jaam ñi ban aq lañ yoral yàlla ñun ñii lan lañ yoral yàlla ndax xam nañ ko Muaz ne ko yàlla ak yonent moo ko xam yonent sallallahu alayhi wa sallam comme Muaz xamu ko te daf koy jàngal mu ne ko aq bi jaam ñi yoral yàlla mooy ñu jaamu ko ñu bañ ko bokkaale ak kenn ñu bañ ko dendal ak kenn wala lenn kon ndeke jaamu yàlla subhanahu wa taala aq la ci ñun bu nu yoreel yàlla sunu neexee bu nu naqaree dañ ko war a def ndax dañ ko ñoral yàlla waruñu dendale yàlla ak kenn waruñu dendale yàlla ak lenn lu ñuy bëgg-bëgg nit wala ñuy bëgg-bëgg dara waruñu ko dendaleek yàlla looloo tax gis ngeen tabaski ibrahim bi mu amee doom bëgg ko torop yàlla di xool fan la ibrahima toll yàlla di ko testé yàlla mu ne ko ibrahima reyal doom ji ibrahima xam na ne moom jaamu yàlla la warul tollale li yàlla bëgg ak bëgg-bëggaam ban bëgg-bëgg la jëfe mooy mu bàyyi bëgg-bëggam mu def li yàlla bëgg te mooy rendi doomam loolu mooy jaamu yàlla da ngay bàyyi li la neex bàyyi say bëgg-bëgg nga def li yàlla bëgg ci yow loolu mooy jaamu yàlla loolu moo tax yàlla indi la fi mbokk yi fal gaaya min wujudil insaan wal jin tatamassalu fi haadihi l wazifa jubluwaay bi tax yàlla bind nit ak jinne jële leen malaul aala wàcce leen ci kaw suuf du lenn lu dul jaamu yàlla yooyu nit ñooñu ñu def li yàlla bëgg ci kaw suuf mu ne wa hiya al ibada loolu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nag ci Sénégal déggin la wala anam la ñu bari ci ñun bu ñu leen nee jaamu leen yàlla mu ne julli naa maa ngi julli yow lu tax doo jaamu yàlla mu ne maa ngi julli de julli maa ngi julli maa ngi woor léegi loo bëgg loolu du jaamu yàlla ci la bokk jaamu yàlla aw dundin la aw dundin sa 24 heures bi nga yeewu ci kaw lal bi ba bi ngay tëddaat ci kaw lal bi di ñëw dundin boobu soo ba li nga lépp looy def loolu mooy jaamu yàlla lépp loo war a def rek yàlla def cee war a wax nga def ko soo xamul lu ci yàlla wax nga laaj sooy takk soxna doo takk ki nga bëgg ki la yàlla takk loo ngay takk booy tabax kër doo dëkk fu la neex da ngay seet fii yàlla ne baax na pour nga dëkk fa pour nga mën a jaamu yàlla nga dëkk fa gis ngeen Ibrahim ba tey ci tabaski déggin bi rawale na ay doomam ak soxnaam ba indi leen ci xur boo xam ne fi waadin xayra zizar xur woo xam ne amul garab amul mbay amul ndox amul dara waaye lan moo tax Ibrahima rawale leen ci dëkk indi leen ci àll mu ne rabbana li yuqimu salaa yàlla pour ñu mën laa jaamu kese moo tax ma def ko gis nga kon ndeke jaamu yàlla dundin la sa lépp looy def même yére yu ñuy sol waru ñoo sol couleur bu ñu neex waru ñoo sol melokaan bu ñu neex même bu doon jigéen la li mu sol yàlla subhaanahu wa taala def cee wax loolu mooy dundin ci biir kër gi yaa soxna si nu ngeen di nekkee bis boo amee doom doom jooju fu ngeen koy yar lan ngeen ko war a jàngaloo ban formation loolu mooy jaamu yàlla mais ñun nag dañ koo jël rek yemale ko ci julli ak woor aj màkka joxe azaka jeex na déedéet suñ ne nangam bi nag nga ni déedéet loolu bokk ci mooy mooy li ngeen di gis tey sa liggéey bi loolu bokk ci julli rek la yàlla wax maa ngi julli jaamu yàlla subhanahu wa taala ibnu taymiya bi muy firi jaamu yàlla dégg ngeen lu mu wax ismun jaamiun tur la woo xam ne dafa boole li kulli maa yuhibbu allah wa yardaahu min al amali alzahirati walbatina dafa ëmb lépp lu doomu aadama di def wala mu koy wax wala mu koy jëf ci ay wax wala ay jëf yu feeñ ak yu nëbb loolu mooy jaamu yàlla loolu moo tax lislaam mu nekk diine joo xam ne sooy tëdd ci kaw lal bi sax am na looy wax boo yeewoo am na looy wax soo solee sa daal wax na la ban dàll ngay njëkk a sol sooy dugg ci duus bi mu wax la ban tànk ngay njëkk a dugal booy génn mu ne la ban mooy njëkk a génn sooy dugg ci duus bi mu ne la noo fay nekkee benn saha benn waay yahud ñëw na ci abu darda ne ko est-ce que seen diine ji jàngal na leen lépp mu ne jàngal nañu lépp kay mu ne bàyyiwul dara mu ne bàyyiwul dara lépp jàngal nañu ko jàngal nañu ba jàngal ñu ci biir booy dugg ci duus nooy dugg booy génn nooy génne yahud bi ne ko booy dugg nooy génn nooy duggee mu ne ko nga jiital sa tànk càmmoñ ne bismillah allahumma inni audu bika min alxubusi wal xabaais mu ne boo fa duggee mu ne bul jublu penk bul jublu sow charriqu aw garribu hadis boobu waa Madina ñoo ko moom charriqu aw garribu bu leen jublu penk bu leen jublu sow jublu leen gànnaar wala bëj gànnaar su ngeen di dugg balaa seeni tubéy di summeeku na ngeen yegg suuf bu leen waxtaan ak kenn su ngeen paree bu ngeen amee ndox moo gën su ngeen amul ndox jëfandikoo leen xeer wala këyit mooy tandiku leen yax yi ndax seeni mbokk jinne yi moom la ñuy dundee lislaam bàyyiwul dara mbokk yi tey sunu réeree bu ñu melee nii nu mel xamuñu lan moo tax yàlla indi ñu ci kaw suuf mooy jubluwaayu jaamu yàlla moo xat ci ñun moom la ñu déggul jël jël jaamu yàlla tënk ko ci mbir yi ñuy gis fi ci biti leneen li ci biir yëpp ñu ne yàlla subhaanahu wa taala programme wu ñu pour ñu dund ko ixwatal iman mu ne wa man qasara fiha képp ku gàttañlu ci jaamu yàlla mu bañ a xam jaamu yàlla léppam la dundam gi yépp la ëmb kooku dëgg-dëgg perte na jubluwaayam ci kaw suuf mooy koo xam ne xamul lan moo tax yàlla indi ko fi xamul lan moo tax yàlla indi ko fi nañ jël misaal ci benn liggéeykat fonctionnaire bu ñu jël ci bureau heure bu ko neex lay xëy bu xëyee dugg simmi costume am wékk ko ci siège bi tambaambalu ci bureau bi dem ñibbiwaat yéeg otoom te ñu koy fay salaire un million ñu loose ko jox ko oto dara manqué wu ko waaye du liggéey kooku est-ce que xam na dëgg-dëgg lan moo tax ñu jël ko ci bureau boobu wala muy jigéen joo xam ne dafa sëy si ci kër day tëdd rek di nelaw du def dara doo ko fekk muy def dara nelaw rek est-ce que kooku xam na li tax ñu indi ko ci kër gi noonu la ñu war a xoolee jullit boo xam ne dangaa ñëw ci kaw suuf te xamoo lan moo tax yàlla indi la borom bi subhaanahu wa taala laaj ñu laaj bu mag ci quran mu ne afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun tax da ngeen yaakaar ne dama leen a bind pour fo pour fo rek moo tax ma indi leen fii pour ngeen nekk fii di football bëre simb nekk ci làmb ji nekk ci nekk ci loolu rek ngeen moo tax ma moo tax ma indi leen fii loolu ngeen foog xoolal lan moo tegu ci aaya bi mu ne fa taala allahu almaliku alxaq fa taala allahu almaliku alxaq mu ne kawe na moom yàlla subhaanahu wa taala yéen ci li ngeen foog kon nanu xam lan moo nu indi ci kaw suuf nanu xam lan mooy sunu jubluwaay aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله إخواني في الله وفي بعد الأثار القدسية يقول المولى سبحانه وتعالى يا عبادي ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعين بكم من وحدة ألا أمر عجزت عنه ولا لجلب المنفعة ولا لدفع المضر وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا بك الجلد نيونا حديث القدسي sunu borom subhanahu wa taala di woo jaam ñi mu ne yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maa xalaqtukum li astanisa bikum min waxsha mu ne binduma leen de bu leen yaakaar ne man yàlla dama wéet ma bëgg ku ma wéttali looloo tax ma sàkk leen déedéet xoolal sunu borom subhanahu wa taala yonent bi du ñu nettali mu ne waa asamaan jinne yi ak malaaka yi ak nit ñi ci kaw suuf yëpp suñu àndoon ñoom ñépp di jaamu yàlla ba mel ne Muhammad du yokk ci nguuru yàlla dara waaye ñoom ñépp bu ñu bonoon ba raw iblis du wàññi ci nguuru yàlla gi dara in ahsantum ahsantum li anfusikum su ngeen defee lu baax seen bopp ngeen ko defal ku jaamu yàlla sa bopp nga ko defal defaloo ko kenn kon yàlla nee na bu leen yaakaar ne dama wéet ba ma bëgg ku ma wéttali tax ma sàkk leen déedéet bu leen yaakaar ne dama bëgg adduna bi ñu bari nekk fi ba ma sàkk leen yéen yéen ak ginne yi déedéet bu leen yaakaar ne dafa am lu ma mënul ma defar leen yéen pour ngeen defaral ma loolu déedéet mu ne waaye dama leen a sàkk pour yéen ñi ngeen jaamu ma lu yàgg ngeen tudd ma lu yàgg di tudd sama tur zikr waaye dama leen a bind pour ngeen sabbal lu baree baree bari ñett yooyu yëpp lan la jaamu yàlla wazkurullaha bukuratan wa asila tudd leen yàlla suba ngoon guddi ak bëccëg sahaaba bi bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man dey principe bu lislaam yi dafa diis sama kaw yu bëri munuma ko dénk ma ci lislaam loo xam ne dootuma ko bàyyi mu ne ko laa yazaalu lisaanaka ratban li zikrillah fexeel ba sa làmmiñ bi bu mu dañati di tooy di tudd yàlla subhanahu wa taala kon sunu boroom wax na ci hadisul qudsi bi li tax ma sàkk leen mooy li taabuduuni tawilan pour ngeen jaamu ma jaamu bu yàgg tey nag bugguñu yàgg ak yàlla lu mu mën a doon bu yàggee nit ñi ñaxtu ba mu des toog ak borom alal ak toogar buur ak toog ak ki nga bëgg allahu akbar kenn si ñun tey bu toogoon ak borom alal du yàkkamti jóg kenn ci ñun bu toogoon ak buur du yàkkamti jóg kenn ci ñun bu toogee ki mu bëgg du yàkkamti mu jóg waaye bu ñu nekkee ak yàlla rek ñaxtu commencé wax commencé toogaay bi yàgg na jataay bi dafa yàgg nangam bi dafa métti naaj bi dafa tàng te pourtant xoolal stade bi ñu ci yenn doo dégg mu ngi ne naaj dafa tàng mos ngeen ko dégg ñi yendu ci stade yi naan naaj dafa tàng déedéet ñi yendu ci soirée yi naan yàggaay na yàgg na suba da ngay gis doomu aadama bu génn këram minuit balaa muy dellu ñuy noddu fajar jàkk loolu yàggul te pourtant kooku yokkatul sonnul waaye ñi jaamu yàlla comme xamuñu jaamu yàlla tey ci julli yi sax bu ilimaan reppee ba tariqaaf wala amma su paree nga dégg ñax nit ñi commencé ñaxtu nit ñi commencé wax ilimaan bi war nañu wax ak moom kii war nañ ko seeti këram kii nit ñi amuñu jot ñoom dañuy jéem a dëkkale jamono yonent ak jamono bii loolu du benn nit ñi amuñu temps allahu akbar mbokk yi xanaa xamuñu ne dinañu yàgg bàmmeel xool leen ñu dugg bàmmeel boobu ba léegi ñu ngi fa tëdd tëraay boobu yàgg na wala yàggul tëraay yooyu nag lañ war a xalaat moo tax ñuy nangu di yàgg ak yàlla subhanahu wa taala borom bi nee na dama leen a sàkk pour ngeen jaamuma lu yàgg tawilan wa tazkuruni kasiran pour ngeen may tudd lu baree baree baree baree bari yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sahaaba yi ñoo nettali ne daanañ konte ci benn place bu mu toog lu tolloog juróom-ñaar fukki yoon muy wax subhanaka allahuma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wala muy wax rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur yonent bi day toog di wax ba nit ñi yaakaar ne day waxtu fekk ñaari ñaan yi rek lay wax su toogee mooy kafaratul majlis kon war nañu tàmmal suñu bopp tudd yàlla war nañu tàmmal suñu bopp sunu xel ak sunu lépp di nekk ci allahu subhanahu wa taala ñetteel bi mooy wattu sabbixuuni bukratan wa asila ngeen may sàbbaal guddi ak bëccëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joxe ay azkar sabaax wal masa mais tey ci féttërlu bu ñu féttërlu ak ñàkk a dégg diine ñu bari ci ñun da ngay gis même bu ñu jullee fajar pare da ngay gis ñenn ñi nii la ñuy def nii nii baaraam yi mel ne taw nii doo ci gis sax waa ji teey naan subhanallah subhanallah déedéet su- su- su- daal di pare même ci ñaani gaaw pare léeg-léeg sax nga dem ci dëj yi ñu ne nañ def faatiha nangam nangam nangam da nga jékki-jékki rek gis ñëpp pare te yow boobu da nga naan bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rek nga gis ñëpp ne amiin pare ndax rek nit ñi ni ñuy yàkkamtee seen àdduna loolu du lislaam nanu delloo si suñuy xel nanu xam ne ñun ay jullit lañ jaamu yàlla moo nu indi ci kaw suuf loolu mooy suñu jubluwaay jubluwaay du tabax du takk ay soxna du war oto yu rafet du sol yére yu rafet du am ay doom yu bari du am ay jabar yu bari ndax loolu lépp fii lañ koy bàyyi amu ci lu doomu aadama di yóbbaale lépp li nga sàkku ci kaw suuf booy dem fi nga koy bàyyi lan ngay yóbbaale li taxoon yàlla subhaanahu wa taala bind la kon nag waruñoo fàtte loolu ñu ñaan buur yàlla subhaanahu wa taala mu xippi suñuy bët mu fattar nañ suñuy nopp mu def ñu ñu dégg ko moom yàlla subhaanahu wa taala allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tuazibna bada al mawt bi rahmatika ya arhama arrahimin allahuma inna nasaluka qabla al mawti tawbatan nasuha وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله la ilaha illallah ñu góorgóorlu tollale sàppe yi fatt diggante yi ñu fay portable yi ba ñu pare julli allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذي العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا نعوذ بك من شر ما لا علم لنا.